guddi fukkeel ga ak ñaar ku ci julli fukki rakka bu ci ne mu jàng ci faatiha benn yoon ak xul wallaahu juróom benn yoon des na ko ca wutal ca àjjana juróom-ñetti junniy soxna te des na ko boole dëkkandoo yonente bi sallallahu taala alayhi wa te mel na ni ku jàng tawreet ak injil ak zabur ak furxaan tey des na ko jéggal bàkkaaram yépp lu mu bari bari donte daa toll ni duusi géej gi te des na ko ci bindal tuyaabay jaamu yàlla ak juróom-ñaar fukki at mel na ni ku goreel junniy jaam te bu bis pencee des na ko ràmmloo lu ko soob ci ñi naroon a dem sawara te dana tàbbi àjjana te deesu ko xisaab bismillahi rahmani rahim wadduha wallayli idha خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى